demam nga umpuna mindéef te um na boppub kuy mindéef kudul malaaka ya ko wuuf ak yàlla ak ñamu ko wax yoneen ba ak ënglu badar yori mbiram di ko defar moo tax xamee su lu wér demiinu yoneen la ko jox la dala njurbal ba këram malaaka ya sappe ni gorom di ko bijjanti di gërëm te di ko sabbaal di ko jox way deeye jokk woon fa moom te nekk bar sàq ne xéem wasalla lilxaq min alxaq almubin lii xaadama baana wa ma laysa yabin wasalla lilxaq min alxaq almubin lii xaadama baana wa ma laysa yabin علمني ما كان قبل الخلق من كان لي بكرم وتلق لم ينساتي جالب nuyu eh, ci turu Serigne Cheikh mu Serigne Abdou Aziz Bara ñu ànd ak benn délégation boo xam ni ñu ngi bàyyi ko ci Baye Ahmadou Makhtar moo ñu yebal ci yow ngir bis bi nga xam ni seen bis la muy màggal ki nga xam ni mooy màggal ku tedd gi bi mu ñibbisee woon Touba euh, bi biñ ko xoolee ci hijjire bi mu tombeek téeméerlu at bi euh, téeméeri at nag du benn bis muy loo xam ni euh, dafa bëgg ñu yaatal ko ginnaaw ba mu demee ci Seex mun taxa mi nga xam ne mooy borom bis bi waxtaana moom mu jox ko ci ndigal joxe ci ndigal nañ ko yaatal rawatina tàmbalee ko fii ci kër borom daaru kenn ku nekk xam borom daaru lim mu doon ci liggéeyu sëriñ bi ak li mu doon ci sëriñ bi kon daanaka mën naa ni lépp fii la war a tàmbalee moo tax mu yebal sëñ Cheikh mu ànd ak sëriñ Ousmane mu sëñ Cheikh Gaïndé Fatma sëriñ Sidi Mbacke mu sëñ Aliou Bara ànd ak sëriñ Abdou Lahat mu sëñ Aliou sëñ Ñaan sëñ Cheikh Ndiaye ak man mii nga xam ñu ngi ànd ak ñu ñëw fekk si la waxtaan yow ci bis bi jaarale ko ci Baye Bass mii mu sëñ Abdul Xuddoos mi nga xam ne mooy seen bunt mooy yore seenu kàddu bi ñu wootee démb euh, wax ko ko mu ni nañ ñëw tey jaar ko sëñ Axma ñu ànd ak moom ñëw fii bis bi nag ni nga xam ne ni la ko xalaate wax nañ ñëw ci yéen lu ngeen ci mën a dolli ci xalaat ak gis-gis ngeen dolli ko ci ak i ñaan mooy dañoo gis ni ku tedd ki dafa am lu ko taxoon a jóg te mooy tabax doomu aadama ak liggéey lislaam liggéey yonte bi alayhi salaatu wasalaam ndax li mu bëggoon moom mooy ñëpp mel ni moom loolu la bëggoon moom la bëggoon euh, ginnaaw bu mu fi jógee nag ba mu am téeméeri at euh, mu ànd ak ay nit di liggéey liggéeyam bi te kenn jiitu ci borom daal di ko waxee am ñu ko ootu di ay xalifaam ba mu am téeméeri at ñu war a def ab taxaw seetlu ci loolu jàngat lan la ñu jural loolee nag euh, ñëpp ñu bokk ci sëriñ bi xam nañ ko waaye am ñu nekk ci biti ñoo xam ni xëy na umpale nañ sëriñ bi ñu bëgg koo yaatal ci raison yi soog a ñëw màggal si màggal gi ba ci suba sa nag ñu soog a def maanaam li ñuy wax euh, synthèse tëj ko euh, def jàngat bi loolu lépp nag dañ koy waajal incha allah xëy na def ko ci ay téere ci làng yëpp lañ ko bëgg a def ànd kook boroom xam-xam yi euh, ànd kook ñi nga xam ñëpp nag xam nañ leen ci yoon wi te ñu mën a def ay jàngat ci njàngaleem sëriñ bi ci lislaam ci yarub sëriñ bi ni mu liggéeyee maanaam dëkk yi fi mel ne daaru mus borom daaru mu ñëw sanc ko sos ko ak li fi am lépp ak ñu borom daaru defar xeet yu noonu lañ bëgg woon àddina bañ xam sëriñ bi ñu ko umpule man koo xam loolu moo tax Baye amul maxtaar euh, yabalal ñu ci sëñ mu lañ jub bàyyi ko sëñ Muntaxa itam joxe ndigal ni fu ab taalibe nekk ci biir réew mi ak bitim réew na nga ko yaatal taxawee ko ba nit ñi gën a xam sëriñ bi waaye nañ ñëw ba ci yow itam yow nga xam xam nañ yaay borom daaru ñu ñaan nga yàgg fi te te kenn ku ne xam na borom daaru fi mu fi mu nekkoon loxol ndajoor sëriñ bi kon mbir mi seen mbir la kenn jiituwu leen ci ñëw di ànd yéen laaj ci seen xalaat ak seen i ndigal ak seen i ñaan ba ni nga xam ni ñu la ko sëriñ bu bëggee ñu defee ko noonu moo wala suñu mutaxaa bi ñeneen ci moom it démb barki démb moom it xam leen jàll yëkkatil tollu ci téeméeri million barkeeloo ko ci ndax xam na ne liggéey bu mag la liggéey bu yaatu la liggéey bu diis la buñ jógee ci moom nag dañuy daal di ñëw ci yow yoo nga xam ni yaay borom mbir yi li mooy kàddu yi nga xam ni xam naa Baye Bass moom lañ bëggoon yëkkati mooy tànk yi gaaral ko sëñ bi su ko defee sàkku ci sëñ bi mu ñaan te soññ taalibe yi rawatina njabootu borom daadu gi ni nga xam ni ni lañ ko bëgg ni ko sëñ bi sàkkoo yaatal ko ñu ànd ko ak ñëpp daal mooy kàddu ñoo ngi sant bu baax di gërëm. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu maa ngi nuyu mbokk yi teew ci jataa bi yëpp te di leen nuyoo ci turu sëriñ bi sëriñ Basiiru Anta Ñaŋ mbakke moom mi nga xam ne mooy xalifatu Cheikh Ibrahim borom Daarul Mawti di yëkkati kàddu yi di ko delloo ci li sëriñ Cheikh Coro waxte wax ko ci turu mbooloom mi yëpp di sant yàlla bu baax a baax ci fekk gi nu fekke lii ak ndigal li nu am ci sëriñ bi boo mën cee sànni kàddu yi delloo ay nuyoo ndax mbirum sëñ Tuubaa moom noonu la mm, benn boroom xam-xam daf ma ne woon mm, ku gis yëpp sëriñ Tuubaa laal dara mm, nga dund ko neen doo ko yemaleeg dara mu misaal ma ko ci Amadou Muxtar Mbow bi mu àndeek soxna May di yët sëñ Fadilu reer ba woon ca leelitu xadri yaakaar naa lu tuuti la woon cib gis mu dem ba àgg fi mu àgg moom moomee nga xam ni moo ko yóbbuwoon soxna May mu ne ma xool ko ci àdduna fi mu jaar yépp ba àdduna bi yépp xam ko mu ne ma ko sëriñ bi laal ci yow dara boo ko seetloo dëgg-dëgg da nga mën a xam sëriñ bi ci loolu la ma ko misaale woon lii nga xam ne nag mooy mooy indi jataay bi te mooy téeméeri at yi nga xam ne binu sëriñ bi wanee ginnaaw ci zahir ak léegi loolu de sëriñ bi ñu sant yàlla moom moo ci war ndax fekke ko ba noppi mm, man ca dara man ci dara ji moom mooy li nga xam ne moom la sëriñ Cheikh waxa léegi ne moom la sëriñ a wax mu war ko yaatal ci ñëpp kenn ku nekk nag fa sa pas-pas toll nga nga jëfe noona ca na nga xam ne moo yellu sa digganteeg sëriñ bi pas-pas yi nag dañoo wuute ni jëmmi doomu aadama yi wuutee ñi gudd ñi gàtt ñi xees ñi ñuul noonu la ñu wuutee waaye ku yàlla dimbali ba nga am pas-pas ci sëriñ bi ak ak sa pas-pas nu mu mën a toll rek boo ko jëfandikoo ci téeméeréeli at yii bu jàllee benn bis da nga xam ne def nga ko foo ko mat a def loolu moo tax lii nga xam ne eh, indi ngeen ko ci sëriñ bi kaddu yu bàyyi ko ci sëriñ Ahmadul Muxtaar ak sëriñ Muntaxa eh, teg ko seen loxo yi loola moom Daarul Muxti di ci mën a def lu dul sant ak ngërëm ak mbégte eh, parce que yéene ànd ak yéen ci anam ka nga xam ne jàpp nañ ne noonu buñ ko defee li ci sëriñ bi bëgg dana ko am ndax la daje foofa ci Daarul Xuddus borom daarul xudoos ak borom daarul moxti ci ndigalu sëriñ Touba ak yeneen yi jaaraat ci moom nga xam ne njabootu boppam gi borom daarul moxti ñu ci bare bari bu mu leen di teg ci loxol sëriñ Touba it ci loxol sëriñ Mamadou Moustapha la ko jaarale mu yóbbu leen ci ci ci sëriñ Touba maa ngi fàttaliku màggalu daaru xudoos gi ñuy wax ni ak am at booba mbokk yu baree ngi fi ñuy wër di nuyoo biñ àggee kër suñ sëñ Ahmad Tindoo di bokk na ca kàddu yam fa jàpp ca lam doon wax mu ne sëriñ Mamadou Moustapha daana wax naan ni ngeen fonk Daaru Muxti ndax bari na lu yëngutu te foofu la jóge waaye foofu rek la ci yem na waaw bari na luy yëngutu te foofu la jóge na ngeen ko fonk neen daana ko faral di wax loolu nag mooy lépp day delluwaat ci sëriñ Touba rek ndax barabu Daaru Muxti bi ndigalul Sëriñ Tuubaa moo ko sos 1912 euh, jox borom Daaru Muxti ndigal mu sanc ko euh, loo ko fi mu demoon ci njëlbeen ga ba metti metti koo xam ne lenn ci bokk yi sax dañ ko doon euh, soññ ci ngir ndax du mën a delluwaat Mbàkke Kajoor ga nga xam ne dafa meloon ne ajjanay kaw suuf waaye mu xamal leen ne ndigal moo fi indi te bu ma fi ndigal jëliwut du ma fi jóge ndax boobu métti doog melokaan yi fi nekkoon moo moo waraloon loolu ba demee ba nag ba tey jii mu mu mel nii mu mel te yàlla baaxe nu itam nga xam ne moo mook Tuubaa fii mu nekk nii boo ko dee seet boo weesoo boo génnee li ñu dëkkee fii génne lañu dëkkee ci Tuubaa ñaar fukki kilomètres yeeg juróom-ñett yi tuutay cay des lii day maanaam sëriñ Basiiru ak mboolem njabootu borom daaru gi nekk ci ginnaawam eh, dinañ ko fas yéene ànd ak yéen ndax lu ci waay def lu nekk itam boppam la ko defal ndax Serigne Touba moom moom képp koo xam ne ki yàlla dimbalee na la dara lu mu tuuti tuuti tuuti nga def ko ci lu luy wane ne liggéeyu sëriñ bi la war nga ko sant yàlla moo xam ci wax la moo xam ci jëf la ak ak leneen lu mën a doon kon nag ñu ngi leen di déglu ci anam gi ni ngeen ko bëggee li ngeen yaakaaree ne wetug daru mawti gi ci ndigalul sëriñ bi danañ ci mën a duggeenoo su boobaa ñu seet naka lañ koy mën a def ak ñi nga xam ne ñoom lañ ko bokkal su boobaa ñu ànd koog yéen ci anam ba nga xam ni moom ngeen taamu ne xëy na lee subaa buñ ko doxalee noonu loola danañ ci mën a loxob Darou Mouhty danañ ci mën a feeñ ci ndigalu Serigne Bassirou Anta Niang nga xam ne mooy borom Darou Mouhty te loolu yaakaar nañ incha allah euh, njabootan fi goo xam ne bu ngeen ci buñ waxtaanee ba xam gan wet lañ bëgg ñu doxee rek incha allah duñ yées ca bunt ya nga xam ne ci lañ leen di dañ leen di liggéeyloo yàlla àggale ko ci jàmm te eh, may leen ci ndam te may nu ci ndam te ndamul sëñ bi moom moom am na ba noppi yàlla na gën a sax rek loolu mat a ñaan ndax fekke gi moom ak cant la ñoom cant fekke ñu ne téeméeri at yi mu nekk jàngat boo xam ne bi bu bu bu xóot lay doon itam nag ndax eh, lim fi bàyyi booba ci téeméeri at yeeg léegi kenn ko ci ne nga def ab seetu ci sa bopp boo xam ne ndax yow mm, foo ci féete yàlla na ci yàlla defal ndam te وصل للحق من الحق المبين لي خادم ما بان وما ليس يبين وصل للحق من الحق المبين لي خادم ما بان وما ليس يبين علمني ما كان قبل الخلق من كان لي بكرم وتلق لم ينساتي جالب النيران أو جالب العارين في القسران لم ينحني درو نار الدنيا demam nga umpuna mindéef te um na boppam kuy mindéef kudul malaaka ya ko wuuf ak yàlla ak ñamu ko wax yoneen ba ak ënglu badar yori mbiram di ko defar moo tax xamee su ca lu la ko jox la dala njurbal ba këram malaaka ya sappe ni gorom di ko bijjanti di gërëm te di ko sabbaal di ko jox way deeye jokk woon fa moom te nekk bar sàkk ne xéew